maa ngi lay nuyu di la am mbégte lool toog Sénégal euh, question bi question bu am solo la euh, Burna Boy Dadju mën naa wax na sax ñetti date la ñu am parce que Festi Dakar la cette année euh, chaque année dañuy def Festi Dakar muy Festi Dakar international bii nag mooy suñu troisième édition donc ni choisir Pape Diouf ak génération consciente pour def benn dîner de gala caritatif boo xam ne ni dañ koy def ci benn hôtel. bi nekk biir Dakar fii invité d'honneur bi nag nekk dajju li tax ñu koy def na dafa ñaari thème thème bi benn bi social la mën a jàppale xale yi euh, maison rose bi nekk Guédiawaye ak bi nekk euh, Médina beneen bi mooy day tombé le 18 décembre muy journée de l'immigration journée de l'immigration xale yi nga xam ne dañuy bëgg di voyage yi donc ñu bëgg ci waxtaan ak xale yi souvent dañuy wax naan xale yi dañuy jël gaal ak bateau ñenn ñi di jël oto di dem euh, souvent jël yoon bu logique bi mooy gën et puis dañuy wax ni aussi euh, mën nga toog aussi Sénégal réussir donc euh, lépp rek mënul nekk Europe donc ñu bëggoon aussi gën ko yaatal jox ci ay spécialistes ñu gën ci mën a waxtaan ndax dafa nekk journée de l'immigration mu tombe ak suñu événement boobu donc ñaar yooyu mooy nekk suñu thème ci soirée gala bi daju bi mooy troisième fois ñu koy indi ndax waroon nañ ko def été bi yàlla def euh, mu am Covid ñu pousse ko ñu daal di koy calé le 18 décembre muy ñëw version live nag lay def Dadju il vient avec ses musiciens Burna Boy c'est sa première fois qui vient à Dakar lui aussi il va faire du live des artistes renommés international moom moo gagné woon Grammy Awards 2021 aux États-Unis donc euh, di origine euh, nigériane di artiste bu yi bëgg lool di ko xaar Sénégal donc di am mbégte ak di sant yàlla ba bi ñu yàlla mayee ñu am possibilité war ko def non sénégalais xam nañ ko les mélomanes c'est-à-dire euh, tu sais aujourd'hui euh, artistes yi nga xam ne ne bëgg nañ leen sur le plan international ils ont leur public parce que ñoom ils sont très euh, réseau te ñoom seen réseau yi la ñu communiquer donc les gens les suivent Euh, Burna Boy aujourd'hui c'est l'artiste numéro un en Afrique si les gens sont calés en musique munoo dem boîte de nu doo ko dégg munoo dem di déglu ay rajo doo déglu Burna Boy c'est l'artiste numéro un en Afrique donc euh, il est très très apprécié au Sénégal très attendu li ma lay wax ni sa am na ñoo xam ne gëmuñu ne Burna Boy il vient à Dakar peut-être di ampleur bi boy bi am et puis euh, son dernier album il a fait un duo ak Youssou Ndour il a fait un duo ak Beyoncé donc euh, ñi xamul Burna Boy nañ dem taper Burna Boy ils verront que ce gars c'est phénomène quoi il a rempli U Arena Londres euh, récemment euh, en douze minutes il a vendu plus de vingt mille places billets mi ngi ko doon jaay trois cents livres donc di équivalent presque cent cinquante mille francs CFA ëpp ko sax donc il a un concert le 10 novembre euh, à Bercy c'est complet donc c'est un phénomène quoi c'est du live qu'il fait Dadju il fait du live il vient avec ses musiciens. On maintient, il fait du live parce qu'il a un contrat du live. D'ailleurs, il a un contrat du live. Burna Boy, fait du live aussi. Donc, euh, vraiment, Sénégalais, dinañu gis euh, ambiance bu doy waar muy vacances parce que vacances yi mu ngi tàmbali le 17 décembre. donc euh, ñu am une semaine boo xam ne ne moom vraiment sur le plan culture sur le plan ambiance sur le plan musical sénégalais dinañ xam ne am nañu ay gan c'est des grands artistes. très apprécié par les mélomanes euh, très attendu au Sénégal te lii mën naa ne Sénégal rek moo ko am Burna Boy euh, année bi je pense que Sénégal kese lay joué donc mu nekk inédit exclusivité pour les Sénégalais te loolu gars yi mënuñu ko louper quoi parce que c'est un artiste qui pèse lourd aussi ah dépassé ko yombul. le 17 décembre soirée gala bi ak Pape Diouf invité d'honneur Dadju le 25 décembre. Euh, c'est le grand bal 25 décembre moom na gaa yi jàpp ne bal la parce que guddi gi lay doon donc euh, amul dem feneen on va danser toute la nuit dina am yu ñu def ambiance discothèque ambiance club on aura des artistes qui vont faire la première partie Barnabé va boucler le concert c'est toute la nuit Dadju moom ñëpp xam nañ ne euh, xale yi dañ ko bëgg moo tax moom dañ bëgg a teel a commencer Euh, le 18 moom on va démarrer très tôt gars yi teel a dem mais nañ jàpp ne daal ñetti dates yooyu daal c'est pour vraiment les Sénégalais quoi. le 17 18 et le 25 décembre mooy Festi Dakar international bi ñu cette année muy suñu troisième édition. mais dañ leen bëgg xam nga quand tu ramènes des artistes gars yi bëgg leen ils viennent Dadju euh, c'est pas sa première fois Dadju ñëpp xam nañ ne Sénégalais dañ ko bëgg moom sax daf koy wax donc euh, loolu du bett kenn Burna Boy nag moom mooy mooy le sommet quoi. Euh, c'est l'artiste que personne n'attendait au Sénégal euh, parce que déplacé ko yombul c'est un artiste qui pèse lourd donc euh, fan si ñu ngi koy xaar gaa yaa ngi laaj ci billet déjà donc bu ci yàlla may jàmm daal buñ ci àggee daal Sénégal comme li may wax souvent Dakar le monde vous envie vraiment yeneen dëkk yi nekk tout tout tout dinañu mere quoi ndax buñ sañoon lii seen fu seen dëkk lañ koy def On a Ngaka Blindé, on a Jaman, on a Jayla, on a d'autres artistes. Pour l'instant, j'ai pas envie de citer d'autres noms, mais il y aura d'autres artistes qui feront partie de la fête. Ngaka Jayla, Jaman Express, c'est des bons artistes que les Sénégalais adorent aussi. On a aussi d'autres artistes que j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà, il y, en a, y, y en aura d'autres, Inch'Allah. Voilà. C'est le Sénégal en fait. Ça fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous n'avons du Covid pendant deux ans. euh, mois de décembre l'année dernière le Sénégal était low dans le monde amul woon musique amul woon dara gars yi fête ñu ngi ko passé seen kër te ju xale yi bëgg a génn mënuñu dem fenn année bi nag dañ leen xale yi liñ bëgg indil leen daju indil mélomane yi Burna Boy donc c'est pour montrer que cette année moom Sénégal moo ay quoi. en tout cas merci pour l'invitation Sénégo sama kër la di gërëm ñi fi nekk ñëpp parce que on est déjà en partenaire ci événement Raxu Prod yëpp. di leen gërëm bu baax gis nañu liggéey bi aussi jërëjëf merci